taari mbay jaañ alaaji ngañ jaañ wooy wooy yow laay wayal alaaji medun jaañ ay sa baay umaanu sa morom daan waaw mbar day bëre laay lay la la wooy amat jaañ du mooy sa maam woo yow laay wayal waay tey la samba yaa na ngaan yaayo wooy waaw mbar day bare wooy mu man sa morom daan ee Cheikh Anta wayla leen ma Cheikh Anta Bawal bale bi laay woo doomu yaayu jot mi laay woo eh, eh, eh waaw waaw Cheikh Anta laay woo Cheikh Anta naaru bari takk nan leen ku man nga war ku manul tee nga toog doomu yaayu yu ji laay woo doomu yaayu bada jot mi laay woyal Cheikh Anta laay woo tey la sab may a nangaan njaay Cheikh Anta laay woyanto waaw ey ku man sa morom daan ba da jonn moo yóbbu ngaan jaay waaw Amar du mooy sama maam woo yow wayal waay tey la yaa na ngaan yaayoo waaw mbar day jàppale leen ma Cheikh Anta Bawal bale bi laay woo doomu yaayu jot mi laay woo eh, eh waaw waaw Cheikh Anta laay woo Cheikh Anta naaru bëri takk nañ leen ku man nga war war ku manul dee nga toog doomu yaayu yu ji laay woo doomu yaayu bada jot mi laay woyal Cheikh Anta laay woo tey la sab bayaa nangaan jaay Cheikh Anta laay woyanto waaw jërëjëf mbokki internet yi jërëjëf mbokki amateur yi ñoo ngi leen nuyu di leen ndokkeel di leen wax dimanche su jàmm xam na ñi instant bi añ ngeen seen i kër ñii ay ceebu ñii ay suppu kànja ñii ay domoda

waaye xool xale yi ak seeni i salañ salañ waaye dafa mbër borom musicalement dafa mbër borom mbàkk yu neex yi eh, mbokk yi nañu ànd dugg ci biir. waaw fay naa la buur di la wax ne ngeen dalal gan gi rek Baol TV ngeen xaajal ko rek te xam ne ci la bokk. Mhm. ku bokk ci gétt gi nag naan ci meew mi. doon promoteur ba mu yàgg nga créer sa support médiatique. waaw euh, xam li ñuy daj rek. et puis xam liñ bëgg ko ndax làmb dafa laaj promo laaj visibilité te des fois nga engagé gars yi du ñu am temps ku nekk ci ne ku ne nekk ci pour pourquoi pas ñu créer ñu créer ko ni ñu créer emploi mbër yi ñu créer ko ñeneen ñëw liggéey si kàttanu yàlla li ñu gëm yaakaar ko xooluñu sax ay site internet ay TFM ay 2STV la ñuy xool euh. leer laa lay wax. ginnaaw euh, Tapha Mbeur Alioune Seye 2 ñu ñëw. buñ teggee dañuy teg beneen ñu ngi ñëw ak euh, fils de balle général Malick suñ teggee boobu ma wax la bu dàq boobu. wax ma ko sax non buñ koy teggee rek jour buñ ko teggee naa la wax bu ko dàq. jeex na maa la wax lii. laawo day la sapaya na ngan jaay waaw waaw mbar day bare woo maam ma taari mbay jaañ alaaji ngañ jaañ wooy wooy yow laay wayal samba yaa nangaan jaay waaw waaw mbar day bare woo mama taari mbay jaañ alaaji ngan jaañ jaañ ay sabaay kumanu sama morom daan waaw mbar day bare laayi lay la Amat Jaañ du mooy sa maam woo wayal woo Mandala, Makhtar ci ginnaaw Aïcha Thiatou Makhtar ci ginnaaw jàmbaan de bokk ci xale yi nga xam ne yaakaar yi lamb la moom itam bu ko jëlul def ko ragal maa la bokk jàmbaan de Mbaye Tine Aïcha premier combat jàmbaan de Ndongo Lo numéro 2 ak Petit Diouf Petit Diouf Aïcha écurie Mor Fadam Ndongo Lo numéro 2 écurie Plateau Aïcha Caatu Montagne deuxième combat Pape Thiam Junior quatrième combat de la soirée ndeysaan arbitre sifflé na ci diggante Ama bu Rewees ak l'enfant Kër Baba. Fatim mu ne. Kër Baba. Fatim Kër Baba fu eh. ne. buur Kër Baba fu mu nekk yow laa koy laaj. ah Fatim <laughs> yow yow miin nga boori Jolof Fatim. ah kon ci jolof la. ah ci li ma foog astafurlah l'enfant de Kër Baba ak Ama bu Rëbës Ama bu Rëbës féete seen dajoor l'enfant de Kër Baba féete seen càmm. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi damantey baaraam. ah ci xeex ba gauche eh way sama nay Ama bu Rëbës way eh eh eh l'enfant de Kër Baba guerrier la Fatim l'enfant de Kër Baba guerrier. non guerrier la guerrier. non guerrier la. eh ay daan daan na ko. day daan Ama bu Rëbës. ay daan war na ko nangu Fatim. logique gul Fatim du ma ko nangu. am na carte d'identité daan na Kër Baaba daan na. l'enfant de Kër Baaba. daan na ko moo daan. kii la naan jaan tuuti na waaye dangar jaan ci biir. Ndeysaan Cheikh Omar Cheikh Omar Alioune Seye Junior mooy tuus noonu. Fatima Seye. ah Mbagam la waaw loolu nga may wax. Ndeysaan Alioune Seye Junior a ngi noonu. Ndeysaan ànd ak waa écrit Waalo gépp. ñëwaat na Boy Diouf cokkaas na léegi waaye dalul léegi nag ñoo ko bay boo paree rek joxoon tur sec numéro 2 jaale tur bi wax di ko na nee na Eh, mu mel na Ndongo Lo numéro 2 dafa sonn. moo dafa sonn xoolal kanam gi. riir moo bëri. li mu joxe moom moo bëri. mais normalement ñaari xale yi bu ñu dara war na fa mën a am waaw. Cheikh Omar jërëjëf daw nañ songo. Ndongo dafa daw yooru waaye yooru bi yeggul. yooru bi baaxul loolu baaxul. oh là là sama caméraman yooru bi baaxul. no pour njugu séeréer nee wa waaw Falim combat bi lu ko taxa yag yàgg na. waaw yàgg na pour yag na dafa melna sax ñaari xalé yi. yàgg na da bax tamit bëgguma lii li ha xamna ne combat bi yag na combat bi gàtt gàtt Cheikh Omar jël na 20 minutes ah mu ngi bëgg yag te dëgg-dëgg mbir yi day gaaw day gaaw ah Ablaye maa ngi laa ziar mon frère waaye ah jeex na jeex na Fatim ndongo loo numéro doo daan na Fatim daan na buur waaye combat bi yàgg na waaye yàgg na ko certainement. Aïcha Samb xal. Ebou Fall. Aïcha Samb xal. Cheikh Omar ngi noonu ndeysaan jëm ci biir enceinte. waaw mi ngi si biir de di def ay débat de moom. moom dafa yéex a ñëw sax. waaw dafa yéex a ñëw dafa yéex a ñëw kay. mais Cheikhu làmb ji ci digganteem ak Tapha du yomb du yomb ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ. ay xale lañ. même génération la. Omar sama caméraman. ayca deuxième combat. ayca Saato xol. ana Saato xol. Saato xol alam. ayca Saato xol. ah loolu day ma jaaxal. man daal boo ma dee yëngu daal xale bu ndaw premier combat mais gis ngaa mel ni mu ngi bëri grand combat jàppal rek diggante Mbaye Diop numéro 2 ak Kayta Kara luy am Fatim dix minutes ngi cokkaas bëri nañu fukki minute mi-temps arbitre woowaat leen da baax jërëjëf Bour Gueweul ndeysaan Kayta Kara Mbaye Diop numéro 2 Mbaye Diop numéro 2 Kayte Kara Fatim. ndeysaan Mbaye Diop numéro golf gaynde. gaynde gi de newul ci moom. ne wa wa Fatim pourtant xaw na nekk gaynde de xëj day gaynde gu ndaw rek. day gu ndaw. Lion Soola. Lion Soola. ayca. ndeysaan Mbaye Diop numéro 2 lan la bëgg a def kan mooy sa président Pape du Fall jeex na jeex na takk na ko eh, oh là là ah. non bëri na bëri bu sob tabar histoire la ah kii sonal na waaji waay non sonal na benn yàq la benn yàq la Falim Diop raas pàcc la waay Pa Abdou Fall waay luñ ko way yeyoo na ko fan baax aka bari ngor aka am julli bu rëy Mbaye Diop bàyyi li ngay def mais Mbaye Diop bëri na problème a ah. Mbaye Diop mii ko réew la guerrier sa sa turandoo Mbaye sa turandoo naanaan guerrier xoola kayit ah, génne ko Mbaye Diop puus na ko génne ko saaku yi sonn na non sonn na buur sonn. kii bu fi yàmb ji la yemoon sax waaye xool na ay supporter am ne ne sama bakkan laa ci teg dina leer. man tey baaraam xool ko yow. xeex ba fàtte xeex. waaye saay saay la. arbitre àtte na. avertissement lan la Keita def. dëgg protestant waaw xam nga boo ko miinul daf lay gêner. daf lay gêner déggal salsa bi loolu pàccang la da baax. waaye xale wey waay. Mbaye Diop a ngi dóor Mbaye Diop mu ngi rokkos sox. Eh, Keita Kara mi waaw waaw ay bokkam nañu wax. xale bi yegg a ah, eh, eh, taxawal bëreel bëreel daanu nga. daanu amul Mbaye Diop daan. daan na ko xoolal xoolal njàpp ba. xool nañ ko nañ ko bàyyi Mbaye Diop champion la kay de Kara daa sonn. tëdd na Cheikh Omar. Cheikh day noppalu. Keita day noppalu. tëdd na jugal Keita jugal. ay tekk la waaw. maanaam kon dafa mbër tekk koy daan wala. noo demul noonu sax xam nga dañ daan ñëw di dañ daan suñu bopp. di def lu ne di def affaire xale waaw mais léegi nag léegi am ah, yenn yoo xam ne waratuñ daal moom na laaj naa ko sax na rang muy gaaw nee na luy gaaw lay doon lii waaw rang mu naan kang rang mu kang kang waaw moo tax nag ci kanam yàggatu waaw lépp dina leer kon ñu yónni yàgg yow daal li ma la daal mooy éwte naa la suba yëmbal waaw seen kër bari na beñe wa ñëwee ma toogal ay ginaar. ñëw naa fa lekk fa ba ay ginaar yu neex. mani la suba di nga ñëw wala doo ñëw. suba ah ku daan ma seeti la de. kon ci kattanu yàlla kon jàppal man mën ngay seeti. incha allahu rabi incha allahu rabi. ginaar la wax xaw ma nag kuy daan. looloo ma desee leer. waaye waa Dakar jël écouteurs yi jàmbur yi. Tafa ñoo ngi lay. maire maa ngi lay delloo ziar baax a baax baax. nga am tey bis bu rëy ci sa diggante ak Alioune Junior lan ngay waa di sant yàlla rek di ñaan yàlla may ñu ndam bu sedd guy incha allahu rabbi. nee na moom yow doo adversaire ci moom làmb tëre di moo tax mu bëre. xëy na xalaatam la wax rek mais man dama jàpp ni làmb la te pare naa lépp lu ma war a pare ànd ak waa parcelle ànd ak sama waa koñ ak samay xarit. di ñaan yalla moy mo ndam lu leer ci ko ani sa bàjjenu gox Ami Diouf. wa mère Ami mu ngi fa sonn na si combat bi torop ñaan yalla yalla may ñu ndam ma may ko fitu war bi inshallah rabbi Arbit ëffalaat na nga yox Fatim arbitre ëffalaat acca arbitre ëffal na la ñu guy gi bébé gi de bébé gi seen ndajoor caatu montagne seen càmm bu ñu dajee rek mu neex da baax mais buur bébé guy gi bëre na lu le mais ñu ngi bëree ñaari xale yi dajawaat bàyyi nañu xeex bi lu tax jàppante na ñoom ñaar kenn ñoom ñaar jàppul kenn ñoom ñaar jàppul Fatim. déedéet kenn ci ñoom ñaar jàppul. yaa ngi xaaj bébé guy gi ngi xaaj caatu montagne yi ngi xaaj Fatim. waaw mais bébé guy gi benn loxo mi ngi yootu ngem. mais jàppul. jàppagul même caatu montagne jàppul. caatu montagne ñu ngi dóor pour mu baax. ñu ngi dóor. mu ngi dóor pour mu baax yoonu bëre la d'accord na. non buur xale yi luñ leen fay jar. day dam yee. waaye ndiku li mu way neex na waaye tey général bu Malika ak Fils de Balla dañ fa war a daje ñoom ñaar tey signature de contrat di combat boo xam ne Assane Ndiaye Baol production moo ko tëgg tam itam. ndeysaan xam nga xam nga Thiatou Rebeuss tamit da ciy daje ak Alliance Baldé. ak loolu combat la da baax. hey hey hey hey. neexul ba neexul ay bébé. xoolal guy gi hey bébé guy gi. non xale baa ngi bëre a bëre. xale bee mën a bëre. Thiatou Montagne gu suivre am na lecture Fatim. waaw mi ngi bëre ak xelam. mi ngi bëre ak xelam. Bébé Gouy Gui ne li muy def noonu la moom itamit di bañ a force action. non xale bi mi ngi bëre kaar. bi mu lambee lambaat xam ni baaxul dafa bàyyiwaat. delloo si bëri gis nga mu ngi ko koy def mu ngi ko koy def yokk mu ngi naas mu ngi yokk Fatim mu ngi seere eto bi. waaw bu ñu ba léegi. mu ngi seere montagne bi Fatim mu ngi seere galgal ba da ngay dem kuy dem. da ngay dem caatu montagne caatu montagne xale bi xale la mu ngi seere eh, lu am caatu montagne daan na Fatim. caatu montagne daañu. boobu bee njëkk dem loolu laa gis man bu wóoru. loolu laa gis Fatim. kon bébé guy gi moo daan. caatu montagne boobu laal na suuf. waaw moo jiitu. mais nañu bàyyi xale dafa mel ni ku gaañu nañ ko bàyyi dafa mel ni ku gaañu Fatim. mais ñun. li ci xel. bàyyiwuñ ci xel. bëri na ba daanu Fatim. bëri na ba na ba daanu. ba guy gi kaar ma. xale ba ak Baba Diallo bu pikin mbooloo waaw Père Gora ak sama ñoo bokk benn papa man moom oui noonu la demee waaw ñu ba gis nga bëre bëre bu metti billaay entraîneur ak yaay gi yëpp sas ma xoola waa mafia géejawaay baa ngi waa mafia la Bawol bi waaw waaw gis nga a ngi nii ma gunge ma sama papa ñaanal ma sama yaay ñaanal ma maa ngi sant waa Pataar waa Caajaay waa Fatick jàpp nañ ci combat bi trop barke Serigne Touba lii ak lii lii ak leen maa ko moom jël billaay yaay booy di sant waa Géejawaay bi Malal Racine Tall Baye Mbaya waa marché Ndiarème jaaykatu yàpp yi maa ngi bëggee ñëpp ku lim ku ma limul xam nga ne dama laa fàtt mais félicitations kontaan maa la gën a bëgg yaay booy man sama morom daan waa mbër day bëri lay lay la laawo day la sa bayaan yaay waaw waaw mbër day maam Makhtar Mbaye Diagne alaaji ngañ Diagne wooy wooy yow laay wayal alaaji Medun Diagne ay sa baay kumaanu sa morom daan waaw mbar day bëre laay lay la la wooy Amar Diagne du mooy sa maam woo yow laay wayal

wayle leen ma Cheikh Anta Bawal bale bi laay woo doomu yaayu jot mi laay woo eh, eh waaw waaw Anta laay woo Cheikh Anta naaru bëri takk nañ leen ku man nga war war ku manul tee nga toog doomu yaayu yu ji laay woo doomu yaayu bada jot mi laay woyal Cheikh Anta laay woo tey la saf may a nangaan yaa Cheikh Anta laay woyanto waaw ey ku man sa morom daan ba da jon moo yóbbu ndam bawal bawal bi laay woo Cheikh borom yaayu ba da jonn laay woo woo ma mi ngi bëgg a yàgg moom ñoom dafa bëri calcul waaw dafa bëri calcul moom la sama caméraman wax ndeysaan Cheikh Omar sama caméraman nee na combat bi dafa bëri calcul ndeysaan eh waay Pape Ndiaye ay dembum na ñaala ndeysaan li joor numéro deux cinq gi ay bëre leen waay bëre leen bëre leen bëre leen li joor numéro deux gi Ndey Coor numéro 2 Ndey Coor numéro 2 ndeysaan seng gi ci bisu Alioune Seye Junior bu Waalo ak bu Grand Médine ndeysaan seng gee ngi door ci suuf mais vraiment bëreetu leen bëreetu leen xale yi bëreetuñu yàlla dina am li coor numéro 2 daan na segg gi li coor lan la lan la lan la ndànk lu xew daam seen lu xew Tapha Mbeur lan la Tapha lan la Tapha Tapha Mbeur lan la Tapha Mbeur bi xaw na dis ci moom remarqué nga ko xaw ma nu mu demee noonu nee na supporters yi jug leen nee na supporters yi nañu jóg waaye waa ñi mu àndal Cheikh Omar dafa mel dañoo manqué maturité. ay xale rek lay àndal. il faut que Tapha Mbeur dal mu dal. coow lay bañ moo tax mu bañ a dem fële. wax na dëgg. wax na dëgg. Dame may ma ko. Tapha Mbeur. jaajëf ni na gars yi na la gars yi bàyyi ndax bëgguloo coow. ma dañu gis ne dafa mel ni pression bi dafa yéeg. gars yi ñooy dugg suñuy mbir di def ay affaire. nee na gars yi ñooy dugg seen biir di def ay affaire nañu dem. dafa mel ni il est confiant. il xaw ma lu xew. xaw ma lu xew. Alou Seye 2 pression bi bari na. pression bi bari na. man lay soo ci làmb ci kanam yàlla bés bee toll noonu. yàlla baax na yàggatul. nee na yàggatul bés bee toll noonu Cheikh Omar waaye gis nga ba tey problème yaa ngi am xoola Aliou Seydou xool ko xool ko Cheikh Omar kii fu mu teg boppam sey lan la. kii lu mu tey nga ni. na daal. ah il est confiant. il est trop confiant même. waaw même mais ku muy bëreel la ndaanaan la. ku la. waaye moom mi bu bëggee bokkaat ci lamb foog mu daan ko tey. waaw mooy yoon loolu moo koy indiwaat si lamb ji. foog mu daan ko tey. looloo ko indiwaat si lamb ji. dafa mel ni ñi ma ko gis ñu àndal man ñoo gën a dal suma xel. waa moo gën a dal Tapha Mbeur côté dafa bëri ay xale trop. ay xale effectivement. xeex ba door na mbër ma ay lamb ji tey door na mbër ma xeex ba ku yaa ngay jolli Cheikh Omar kay ku yaa ngay jolli xoolal li lan moom moo dóor mbër ma lu xew lan la Cheikh Omar lan la sew Omar gaañ a ngi yàq làmb gaañ a ngi yàq lii lan la lu xew lu xew lañ koy arrêté mu ngi noonu effectivement am na lu muy jëliwaat dañoo jël gàllaajam forcé dinañ ko yóbbu. daa bëgg a dellu. daa bëgg a dellu. xoolal. xoolal. mu ngay delluwaat. mais dañ ko war a arrêté loolu mooy yoon. parce que amul droit dóor mbër mi. amul droit dugg ci géew mi amul dóor mbër mi. gaa ña ngi koy rawalee. gaa tey lamba ji bari na tension Cheikh tey làmb ji bari na tension tey. saa bokkal jomaay ku ne am nga avertissement ay bëre leen waay bëre leen. Fatou mere leen de. non naa leen. waaw mere naa leen. non buur ñaari mbëri dañu wane dañoo war a wane seen bopp xoolal ay seer lañu xalil ay yéen tamit tey baaraam sottalu làmb ji xoolal saa boqal a ngi koy boqal. waaye du xam lu ci topp. du xam lu ci topp buur. non yàgg na yàgg na yàgg saa boqal boqal na ba pare waaye xamul lu ci topp Fatim. am na lu mu gis. Ardo Ardo saa boqal daf ko bëgg a génne saa boqal daf ko bëgg a génne saa boqal bàyyil ki ngay puus muy génn moo da nga bëgg a jeexal làmb ji defuñu fi dara avertissement saa boqal dafa ko fab génne ko ca jeex na jeex na jeex na loolu la bëggoon. waaye neexul waaye. neexul dara. Cheikh Omar kooku mooy Demba Thiaw numéro 2 ndeysaan ndeysaan moo nekk ci écurie bu mag boobu noonu di Yoff waaw waaye Jomaas ngi noonu di lagg xoolal Jomaas Cheikh Omar ndeysaan Jomaas ngi noonu di lagg ndeysaan Diomaye Faye lagg noonu buur lii mooy yi ndeysaan bu Yoff combat bi yàgg na vraiment lu ma lu ma naqari fàttim ci combat yi. buur combat bi kenn yaakaaru ci woon te Demba am na deux avertissement xaw ma trois. mais mbëri seen adversaire bu amee avertissement dañu jéem a rey Jaba sel na ko Boy Jaba takk na ko daan na ko Boy Jaba takk na ko Boy Jaba daan na ko le ministre kontaan na kontaan na tey daan na ko Thank you. Alliance Baldé lan ngay wax. waaw am naa commencé sama diggante Alliance Baldé di ci woo waa Rebeuss yëpp xam seen doom seen xarit seen rakk moo am combat di woo waa Dakar Plateau bépp ñëw soutenir ma dooleel ma ndax man kuréel Rebeuss laay défendre di ñaan yàlla na ma yàlla may ndam ci kaw Alliance Baldé di ci woo ki ci mel ni sama grand Tafa Mboub taalibe Cheikh ama fayam combat bi combat Tafa Mboub la taalibe Cheikh barke Alxuraan jëlee na bee yëpp te lamb ji ñëwagul taaliba Cheikh Ama Faye maa ngi koy sant bu baax a baax kooku mooy sama Malick Gakou mooy sama Macky Sall mooy sama président Tafa Mboup taaliba Cheikh maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Mor Talla Gueye Mor Talla Gueye taaliba Serigne Saliou chéri bébé Fa aw ma foyam li lépp moom la barke Serigne Touba Mor Talla Gueye day ci man maa ngi koy bu baax a baax chéri bébé Fa di woo waa Roog yëpp di sant sama mafia procureur bi di leen jox rendez-vous esat arène nationale di jox gars yëpp allo allo allo allo allo allo allo allo allo ndeysaan mu combat bi ñëpp doon xaar buur waaw jot na Tapha Mbeur Boy Kiri Grand Médine ak Aliou Seye Junior écrit waalo ndeysaan arbitre ngi wax ak ñaari mbër yi li lamb nango ak li lamb bañ muy première journée Bawal production ndeysaan ci teewaayu le président des des promoteurs muy Pa Abdou Fall day gaaw Fatim day gaaw dafa mbër seen Aliou Seye numéro 2 seen càmmuñ arbitre sifle na da baax arbitre sifle na buur ndeysaan Tapha ngi noonu talal loxo bi acca day gaaw mu ngi noonu Tapha Mbeur ci defet la jugee Double Moteur doon wàcc noonu Tapha Mbeur ci defet la jugee Tapha ci defet la jugee Alioune Seye ci defet la jógee Alioune Seye la jugee ñoom ñaar mu doon combat bu war a metti nag ci ñoom ñaar ku ci nekk da nga war mais buur lambu Assane Ndiaye metti na. ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi léew toog sa borom buur lambu Assane Ndiaye neex na waaye metti na. waaw mais noonu la waaye xool Alioune Sèye Junior ni mu accéléré Tapha Mbeur daawul xaar xaar lu mën a nam Fatim. Alioune Sèye jël na ko. Alioune Sèye dem na dem na. ma ngay door. waaye xeexuñu Fatim. xeexuñu. xeexuñu Alioune dugub bi yeggul yooru bi yeggul dugub dafa yooru. dafa yooru. dafa da koo bëgg a jàpp. Tapha Mbeur bu xeexoon am avantage eh, Tapha Mbeur tarxi Alioune Seye Junior ndax nañ ko fa Alioune Seye Junior Tapha Mbeur Alioune Seye Junior Tapha Mbeur Tapha Mbeur Tapha Mbeur da koy daan Tapha Mbeur da koy daan koy dóor da koy daan ma ko dóor Alioune Seye da ngay daanu lan la la ilaha illallah lan la am na ko sat pour am na ko sat décision dañ ko ni xaaral léegi dafa mel na xeex bi aussi moom lay daw waaw moom lay daw jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko jëlaat na ko doxay daan daan na ko. dafa mbër erreur bi ñetti yoon la ko def ñetti yoon la ko def dafa mbër erreur bi ñetti yoon la ko def Fatick. juum na daan na ko Alioune Seye Junior daan na ko. gis ngeen mbokk yi tey ñu ngi àndoon ak kenn ñëw fi nga xam ni mooy stade Iba Mar Diop ci Assane bool production tey doon teg drapeau bool TV nga xam ni mooy si internet am boobu. tey gis ngeen Aliou Seye Junior wane na expérience am Aliou Seye Junior waxoon na ma ko doucement doucement Aliou Seye déglu leen Aliou Seye tey li nga bëree ndam rek laa doon dama bokk ci espoir. damaa bokk. waaw damaa bokk ci espoir yi. espoir yi ma dama cee bokk. lamb tëre li rek mais du maa ñii. barke sëñ Ba. waaw. ba muy ñëw fekk na fekk na ma gën ci action bi. ba muy ñëw xam nga ne ñëpp xam nañu kii fekk na ma génn ci action bi mais maa mën a bëri. lan laa la waxoon lan laa la waxoon. kii taxu ñoo jóg barke sëñ Fallou. booy bawal ak caat. sama booy bawal ak caat booy bambara. sama tour de jaas la xoolal tour de jaas bu bees tax. amaat ay nit ñëpp dañ maa bàyyi. daa déglu leen déglu leen. déglu leen waaw déglu leen déglu leen déglu leen. ñëpp dañ maa bàyyi. say nit ñoo la bàyyi. waaw sama nitu démb ñëw xam nga ñii démb mbapat ñii laa daan gis ay borom kër lañu. waaw kon bàyyi na làmb man ñii ñoo ñii ñoo ma daan jiital mbapat. ñu ñu nekk ay borom kër. ñu nekk ay borom kër. ñu ne bàyyi na lamb saa yi moom itamit jàppale ñu mais ñëpp bàyyi ma ñu ne rakk ñoo ñëwaat moo tax tey ndam rek laa mën a maa ngi sant waa Yimbal yëpp di sant Masata Masata Alé Ndiaye maa ngi ko sant di ko gërëm. Kéba Kanté maa ngi koy sant ko gërëm. gis ngeen Aliou Seye Junior kaddu yooyu mu yëkkati mbokk yi làmb ngi noonu Tapha Mbeur n'a pas démérité kon dañ koy ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndaw Aliou Seye Junior moom tamit continue sa route waaye cat booy bambara Aliou Seye Junior lancé la le défi nee na yow rek la soxla waxuma ko nag moo ko wax ak kan ak booy bool kon mbokk yi lii la ñu tey. ci Asta Diop Iba Mar Diop sur Dakaractu ak seen mbokk Bour Gueweul ak Fadam Diop da baax